sëriñ de victoires. Et puis moi, je vois leen ziar yéen patriote yëpp leen jox seen wàccuwaay di leen dalal di leen wax ni waaw bàyyi na ngi am jàmm daal waaw umu al amin mbay naa lay ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay Rose Marie ziaraat bégeewaat yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay rek di nuy gars yi ana gars yi nañ ñëw ñu tënk lu ndaw rek ci loo xamante nii baax nañu leeral ko balaa ñuy soli nañ tënk lu ndaw rek parce que comme famille lañ te ñun ñëpp ñoo bokk benn mbir. nañuy nañuy nañuy nañuy waxtaan balaa ñëw bu ñuy jug nañu jugandoo lu ñu may doole ba heure bii e saa sama doomu day Akon Niass jaar na la bu baax a baax macha allah Akon maa lay jaar baax a baax comme ñun ay famille lan bu ñuy jug nañuy jugandoo bu ñuy dóor nañu dóorandoo bu kenn dem bàyyi moromam donc moo tax te tamit euh, combat boo ko yoree dafa baax ngay demee sa xel stratégie di demee xel dafa am solo waaw euh, mm, non man li may wax mooy dama bëgg dama gis ay publication ci li Macky Sall ak waa APR bëgg li kontaan la waa APR te ay patriote du ko def li kontaan la waa APR ay patriote du ko def loolu laa bëgg ñu teel a wax ak yenn patriote yoo xam nga am na ñoo xamante ni maanaam maanaam man

te loolu mooy li nga xamante ni moom la patriote war a doxe nañu bàyyi dema émotion wala maa moom sama clavier lu ma neex laay bind kenn moom moom maa ko moom lu ma neex laay def saa yi nañu nañu nañu nañu nañu nañu nañu nañu nañu ànd ak yar parce que bu fekkente ni mënuñoo jël réew mi jox ko Sonko te amuñu yar Sonko mënul defar réew mi ñun ñooy mujj xeexaat ak Sonko parce que yar mooy defar réew discipline dañuy toog kaf nag c'est bien beau dañuy def lépp waxtaan suñu biir parce que ñun dañoo jàppe suñu bopp ñun ak famille lañ mais nag nit ñi duñ nekk di liggéey ba ay ay ay at ñu and ci ben and dem ba ben moment ben affaire am situation am ñi bëgg dem ni diñ demuñu bugaan tay daan dem bu nee neena demul Thierno Alassane Sall ko leen wax bu ko neexon mu dem mu leen demul so dire kon bu leen def mix jaxase ñe dem xamoo leen te si euh te demuñu sax jalo dafa am ben événement bokku la me mais demuñu ko dem mais bu démé sen part dafa dañu am parti mom am ay militants am nañ droit fekkee sant nañ dem ñu dem Sonko ñu ànd ak Idriss Seck matoon nañ opposition bi yëpp dañoo dajaloon dem ànd ak Idriss dem def seen doole li ñu am yëpp ñu dajale ko mat 20 pour cent Sonko cote dong taxaw yàlla may ko presque euh, quinze pour cent. donc ànd ak askan boobu mu àndaloon taxaw ba mu taxawoon bu ko nee taxaw foofu ñun ñu ànd ak moom waruñu dénigrer kenn mbala ñu xas kenn mbala ñu ku nekk sa conscience doy na la sénégalais yi xam na li ñu décidé ba pare. loolu askan wi ndax fii ku ci nekk xam nga li la may mairie xam nga li la tax nga doon li nga doon c'est-à-dire mais bu ñu génnee commencé di wax Barthélémy lu amul respect mbala ñu koy wax euh, Khalifa Sall loolu day frustré ñu bari te loolu baaxul loolu baaxul Sonko moo génn ci làmmiñam seede seede yu rafet ci ñoom nañ bàyyi ba Sonko génn ñii kat dañ maa war wala dañoo def loo xamante ni waxantu ma ko woon ñoom su boobaa ñu mën ne ah ñu comme Sonko lañu àndal dañu jël position loolu lépp amul pourquoi génn fii yàkkamti bu fekkee seen i affaire ñoom dañu ci jublu ndax boo xoolee tey ñoom ñooy publi ñoom ñooy ñoom ñooy partagé affaire ay gis nga sooy jaañ léegi dugal na ko ku ne di partagé ñoom ñoo ci kontaan soo pourquoi ñun ñu ci war nekk di leen ci wax ñoom bu fekkee ñoom dañoo bëgg ñun ñu attaqué xalifa yi gis naa dèjà benn ay nitu xalifa yi commencé di ñoom li ñu bëgg ñu ngi koy def li ñu bëgg am ñu ngi koy am nañ jaxase suñ biir pourquoi ñuy bàyyi loolu saa yi ma ni dix mois des élections nañ leen concentré wu ci li Ousmane Sonko xool li Sonko wax ak li Sonko bëgg détail bu ñi leen ñi def intéressé wuñu ñun waru ñu nekk ñuy leen di propager ak leen propagande seen i décision ak seen gestes ak seen fait ñun pro li Sonko tek ak li Sonko nekk ci loolu lañuy ñuy partager loolu lañuy ñuy loolu lañuy dox loolu lañuy ñuy concentré loolu moy dëgg mais nekk di concentré wu ci ba ay ànd Sénégal wa wa passé wa ki euh taxaw taxaw Sénégal wala wa ki lu ñu def loolu ñoom la concerné yaa yi ñun li ñu conseillé mooy li Sonko nekk li Sonko def li ko bëgg ñu nekk ci loolu kopp dong leneen lu jóg mais génn fii sax léegi xalaatal nga génn fi wax wax ay conneries wax ay Sonko génn gën a réitérer seen relation gën a wax lu rafet sa diggante ak saa ça c'est bonne position nga am après you gën just like yourself nga xalaat sa bopp like you gën a look stupid like lan laa jóg bind nii lan laa def nii ba toog da ngay demander sa bopp ay question kon donc nañu am discipline yar ça loolu fa solo ci mbiri quoi yar doo doo doo doo poste di tooñ nit di saaga di wax nangam sanga parce que yar moo nekk ci yow mais boo indiscipliné nag da dangay da ngay am fit def lu neex da ngay wax lu neex parce que da jàpp ni yaa moom sa téléphone yaa moom sa li ñu ci bëgg a def nga def loolu loolu loolu loolu yokkul yokkul yokkul Ousmane Sonko yokkul yokkul yokkul patriote di quoi nan nan tey da leen dem ci tey te combat boo jël xel ak calcul moo lu ciy génn ku wet na laaj ñi gën a gën a gën gën a xam projet bi gën a jege projet bi biñu ne bërit ci mbirum Sweet Beauté commencé am koo xam na ma billaahi Ousmane Sonko bu fa tegee tànkam ma ma bàyyi Ousmane Sonko waaw ma ne ko man gëm naa dem na fa boobu dafa ma sax xam na ni salaamaaleykum waxaguñ dara Sweet Beauté ma ne man gëm naa Sonko dem na fa parce que la ma ne parce que nit la nekkul intérêt am na droit dem fi mu bëgg a dem pourquoi nga bëgg a jàpp Sonko warul dem fenn fi mënoon na dem wax lu baax mën na faa dem mbokk ko fa yóbbu mënoon na faa dem parce que nit bu gis mbir am rek nga ni ñom Habib ci mën nañoo dem ak ñom Khalifa Sall ak ñom Ba tooga Macky ni ko xam lu bëgg li nga nekkee Sonko arrêté ko kii doomu jàmbur du waxu lo xamanteni xamoo leen ko yeen déjà jugé ngeen leen ci lo xamanteni mo la rafet njott indi sala sa mu ni lenn ci lenn ci ñaaw njott bakkar la lenn ci ñaaw njott rek bakkar la ah di rafetal njott mën nañ fa def lu baax comme mën nañ fa def lu bon ñom la concerné ba tay mais yow mi nga xam yaay njott amoo ci ben bakkar sa yoon néew ci parce que ñom la concerné loolu moy deug nekk di concentré wu ci li Ousmane ko bëgg Ousmane Sonko li mu woote ñu nekk ci loolu bu nee mars nañ gën génn mars bu nee todd leen ñu tëdd bu nee togg leen ñu togg désobéissance désobéissance liñ ñun ci loolu lañ nekk ba heure bii mu may ñu ndam ba heure bi dem di wax ku nekk loo nekk naan kii dafa di ñi dañoo nangam ñu ne xam nga man keroog bën naa ku dem ci euh, euh, euh, dialogue bi complice na mais tey ñi d' accord nañ dem ñi d' accord dem mais man sama sama avis la laa jox ku dem ci bi complice la mais soit awul kenn ku ma ciy bind message di la njaq lu lu ñaaw wala nga nangam sax loolu dafa rafetul day indi xiiroo ngaayo suñu biir parce que ñu am xuloo waruñu am xasante parce que li nañ fi Issa Diène lu ne yekk nag ko fi mu Touré tey gisoo ko li mu mujjee def lu ne yekk na ko Mimi Touré tey gis nga Issa Diène fi mu mujjee taxaw c'est-à-dire yooyu daf ko dafa maanaam wax bu ñaaw moo baaxul nit ki waxal sa position waxal li nga xalaat na rafet mais bul dénigrer dèjà ku mel ni élément Bart élément Bart booy boobu

dialogue bi mu woote ba soon Ousmane Sonko njëkkee toog foofu su ko defee xelam dal mais ak produit ak ak ak ak nit yu mën a yor muy Karimo muy Khalifa woo muy ku mënti tam Sénégalais yi la majeure partie lañu jàpp mooy Sonko bu demal ci dialogue bi dialogue bi safal parce que nag ki mu war a dialogue en fait Sonko la amul ak keneen problème Sonko la amul problème cest à kon ñun yàlla may nañu ñu am doole boobu mais nañu am classe classe dafa am solo gars yi bu ñëwee xoolal man da ngay dugal ma leen di reetaan damay dem fekk soo jaañ ko dugal benn poste parti li mu jaas ak Sonko ma dugg retaan mais génne ko di ko ko vaar loolu la dafa ay jéem a vaar Barthélémy meeg yooyu maire Dakar naa situation ba Macky Sall ñëw si ngeen soog mais nekkul dañoo am ay amitié ku nekk di waxtaan ak sa morom c'est-à-dire yooyu responsable am solo patriote di ko yor mais non non te nag mais ne dafa bëri suñ sama genre gi nag ñoo xamante ni ci koy xale lan yor daal xamul dara leen neex lan xam leen boo wóoloo suñu comme niñ ko defee ba heure bi amaana ñu kon na ci loolu yàlla mën nañu may ndam mais yàlla demee ba gis ni ñu ngi commencé def suñu affaire bopp day sepp loo xam ne xaaral ma seetaan ñii dañoo commencé yëg seen bopp daa mel dañoo mën a nangam sànga seetaan ñu tuuti souvent ñu làpp làppal ñu làpp làppal yu baax ñoom déception ñu bëri di bàyyi non man yaakaaruma avenir parce que suñu comportement moo mu jur loolu mais nañ leen dal tey sax bi waxagul joxagul ndigal ñu toog ja gars yi jaar nañ fu ne billahi wallahi jaar ci diine jaar ci xeet jaar nañ ci lu ne lu ne jaar nañ ci pour dénigrer waa ji yàlla di gën a yëkkati waa ji waaye ñu dem ba mu dese ñu di mois ay yeneen situation yi ndaw di génnaat waaye du ni tekk tekk woon ñu yoon olof dafa am lu olof dafa lu am solo nee leen tekk rek tekk wan la yoon waaye boo naan rambax da nga naan paccax dangay dugg foo xam doo mën a génn kon nan leen dal ni tekk rek déglu sang bi di xool fu ñu xolloo bàyyi xel lim ñuy wax ba pare di ànd kon ne nag ak massifier ak wax ak nit ñi Sonko bu baax bi mu ngi nii kii mooy bu baax bi fexe ba sénégalais yi pare ñoom ñëpp pour jox seen carte sénégalais sax mën naa ni quatre-vingt-cinq pour cent jàpp nañ ni pare bu jox seen carte ku mënti dem da dem waaye yoo ne appareil doo ko yor appareil moom bañ ko ba journaliste yi xam dëgg nen appareil a bi mën a daal Sénégal am ko ba mën a daal état Sonko moo ko am Sénégal ku bëgg ànd ak moom yaa xam ku bëgg ànd ak moom yaa xam mais li mën a daaneel ak sa nguur Sonko moo ko am ñeen des nag mën nañ dem après am ay benn benn deuxième tour am ñu ñëw jàppale Sonko donc loolu bu ñu ko xamee dañ rafetoo ñëpp ñoom ñoo ko waxoon seen contrat sart leen boole Yewwi Askan bi bu ñu demee présidentielle ku nekk am nga dara dem Déthié Fall a ngi nii te def na yoonam def na dépendant ne bu dafay nekk candidat kan nañ ko nañ def dëkk Déthié Fall nañ ko def Khalifa nañ ko def ñeneen ci des yëpp def ko ñoom Karim ak ñëpp suñu yoon newu ci nañ ko def ñëpp ni ñu xoolee Déthié Fall mu demandé Malick ko demande ñu rab bàyyi leen ñu demande seen propre seen yëfu bopp la am nañ choix ñu def ko Sonko dana moom jëndu leen takku leen nekkul seen papa nekkuñu ay membre passif am nañ droit dem demander sen sen sen candidature légui buñ démé nak après buñ bureau de vote ubé dinañ xam kan lañuy vote nit ñuy votal kan moy jël deuxième kan moy jël pi mais dañ fi nek di xex xulo wax lo xamanteni suba ñeene waaw ñun jappalé wuñ len suñu néew parce que boy dañu réew dañu nanga sangam lan lañuy apporter su booba après non non non na len démé ak xel maki bëggul comme sama saa gi ni ñuy wax ni di génn di wax ak yenn patriote ñu dal and ak suñu xel moom bëggul day bëgg ñi nga xam dañuy gën excité gars yi saaga ñi ay nangam taan lañ ñi ay mbaam lañ man koo ma lii commencé révolté bu ko defee live bi di dem ay trois mille personnes gars yi naan wuu live bu tey bi Macky toog fa mu toog daal di alhamdulilah dof gi lii laa doon def dafa leen tegal appa jàpp naa leen ci pièce bi mais bu fekkee da ngaa kaam di woon nit ñi à la dal leen dal leen bu kenn rambax nañ teey jox lu ñu war dox def lu ñu war C'est ma Macky de mu étudier dama leen C'est ni ma ça. di saa dama xam ni ma de di def muy metti dama ko xam te dama koy def c'est façon c'est discipliné. C'est mooy xam-xam wax euh, wise manam. C'est maanaam nga nga wise comme ça comme ni koy waxee sax quoi loolu dafa baax ci doomu aadama di demee sa xel def ay calcul xam fi ngay sa bu fi non non non non nañu dem ñii mos ñoo kii dañu yàgg a dill seen yi nekk nangam sanga wax wax wax wax wax wax nga xëy suba loolu amul nga nekk ci ruq bii laa ko dañ leen bàyyi yooyu da leen di poste sang bi di wane sang bi di wax ci sang bi di wax ci wàllu seli di kon na suñuy laaj nañ ko defee di sensibiliser di bëggee dugg ci kër yi teg ataay yi waxtaan yéen nit ñi woo leen ci Ousmane Sonko wan leen Ousmane Sonko loolu rek moo loolu rek moo ñu dese nit ñi yaa waa ban No, I didn't send the voicemail yet. I'll do it later. Okay, I'll do it. I'll uh, benn xaritam bu ma bu ko leb xaalis ma lebal ko ko moom léegi nee na bëgg ma yónnee ko joo damaa war a su dama ko war a soo woo waaj naan ko fay ma mu bëgg ma fayal ko waaji uh, you know c'est-à-dire ñun ay ñun ay ñun ay patriote lan gaynde ñun dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo ay nobbu lan parce que li ma leen wax nii ah wallahi keroog benn booy wax na ko mooy bi demee meeting Kër Massar bi mu for téléphone bi après mu joxe ko c'est-à-dire ñun ay noobu lañ Ousmane Sonko ay noobu lañ def ñun war a naw ci jikko naw nu ci waxin naw nu ci defin des fois nga dugg ci benn live dégg xoolal waa APR nekk fa di ay saago yu ñaaw nag naan waaw gis ngeen noonu la ñuy def ñoom ñooy wër di saaga te nga leen xool nga mais man en fait man ñoom ñooy saaga te benn live buy saaga ci ku bokk ci mais ñoom ñoo seen live di saaga di dagg saaga c'est-à-dire man damay fan sama bopp parce que may xam man jikko bi ñi yor ma nekkul ci man waaw ah, loolu dafa neex génde loolu la olof di yow ruqus mën a kan yow ngay demandé sa bopp yow la kan mais bu fekkee da ne ci laaj bi daggi saaga yow gis kuy saaga naan ah kii de taxawee parce que ay saaga la yu war def ci internet bi mais yow nga xool nit di saaga wala nit yor boo xam c'est déshonorant nga xool ko nga ni waa mii kii lan a mel nii dafa yow ngay xool sa nii dafa neex jikko dafa jikko yu baax dafa sol yàlla bi mu tàgg yonent ko dara dañ ko innaka la ala xuluqil azim yow li tax ma tagg la mooy sa jikko dafa rafet xam nga gaynde yéen est-ce que dégg ngeen yàlla li mu tagg yonent bi taggeewu ko alal taggeewu ko lenn taggeewu ko dañu ko sa jikko moo rafet waaw jikko bu rafet ko bëggul Ousmane Sonko ñun ñii lan moo tax ñu topp ko jikko moo rafet ñaata politiciens ñoo ne ci réew mi ku ne di woote ku ne di yor ay milliards am seen i télé am seen i bagage am seen i lépp sénégalais yi ñu fi ñukk ñun dañoo bëgg borom jikko bu rafet bii ñu ànd ak moom waaw mais yow boo ànd ak kooku doo xool yow sa jikko pour nga jéem a xool nan ngay mën a mel pour mën nit ñi daan la ii man de man jikkoy diw laa bëgg yor c'est-à-dire yi man man affaire damay jàpp man man affaire fii ni ma koy xalaatee ni ma koy kii nit ñi nekkuñu foofu quoi saa yi waa ji jikko moo rafet moo ñun ñëpp ay paa xool paa bi nekkoon euh, côté yaakaar naa kër kër Massar côté yooyu la daal paa bi tàllaloon loxoom paa Zakar yaakaar naa paa Poul Fouta di ñaanal Sonko bay jooy mooy vidéo nga xam dafa partagé wu fu nekk parce que jikko Sonko moo rafet moo tax paa am yigi boobu ci moom dana nga mën a am leader bu mel noonu nga wër fu ñu la wane yaa ngi dagg saaga di tepp di tef di taf naan non ñoom tamit noonu lañ mel mais ñoom noonu lañ mel mais seen jikko baaxul même bu ñu mel noonu seen jikko baaxul kuy dil suuf di jéem a kii naan da ngay jéem a nax Sonko am nax yàlla ay boo leen ni plan teg seen i plan mu ni man seen plan dinaa leen bàyyi ngeen plan ba pare waaye man sama bos mooy aboutir kon ñu leen tiit te la ñuy nekk di wax ñiy waxtaan nañ fii bu nekkoon Macky moo naa rendi Sonko moo na koo tër tër na ko bu yàgg du xaar Khalifa ak yi Karim soo doon bàyyi ndax day Sonko jéggi di xaar na maa ngi xaar ba kenn ni oxo ma lijjanti li ci des kenn du wax yàlla ne ko bàyyi leen ñoom ñu plan man ma dooleel la kattanal nekk sa ginnaaw di la puus duñ mën ci yow dara ba ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñëpp Macky da leen a làppoon sax yow dinañ ñëw làqatu sa ginnaaw nga joxleen ay député jox leen ay maire bu ñu xëyee xëy ndel lay war loolu lay wàññi ngay noobal Sonko di noobal da ngay nekkee ak moom di am Sonko noobal la ñoom Sonko dafa am mérite Sonko bu nekkul woon sax président ni leen bàyyi naa ni mu tëddi moom daf leen a def ñoom li ñu doon da a dooleel da leen a may fit da a yokk courage kenn yooyu nit kooku doo koy amee ñu lay wax yenn yi mu lay frustré parce que alxuraan Sonko esprit état d'esprit la Sonko noobal la gars yi bi ñu jommee ñëpp kenn xamul foo jëm ku rëng mu dóor mbéj nga tëdd Macky ku rëng mu dóor mbéj nga tëdd xale bi jékki-jékki ni fël tex ci kanam saa waay premier bal bi mu njëkk a dana ko taj contrôlé te ko dënd bi na ko teyal ci lépp affaire dañ koy xoolaat ñoom ñëpp ñu commencé boxe ko di yëru naan ku ne foofu ñu leen booy joolaa bi ñoom ñëpp génn bootu ci ginnaawam mu boot leen boobu ba tey ñu jéem lu ne booy bi résister taxaw ànd ak askanam ñëw ba heure bii ku nekk di jéem a ut foo laqatu yéen ngeen ni kii booy bi di noobal booy bu jàkkaarloo ñi lay def kuy dox ñi lay def siggi ñoom kay ñoo ngi xool ñu koy waaw loolu amee loolu yéen ngeen nekk di génn di bëgg a def ay déconnance fa déconnance bu leen déconnance waa ji noobal la ñu ànd ak noobul noobul bi ñu àndal barki alxuraan saa yi yaram Sonko état d'esprit da nga koy dund Sonko ay bagage yu war a daw ci yow la yéen ñu noonu ngeen commencé mer commencé génn fii ku ne di posté di nangam sangam ñun dañuy ñoom ñun dañuy ñoom bokkuñoo kenn bokkuñoo kenn ñun dañ leen suñu waay boo leen ko laal la ñu jaay leen bakkan yore ay bakkan yu bari yoo xam dañoo pare pour bakk yoo xam dafa pare pour des ci biti ñu essayé ñu won leen ko ñu dóor arrière ba dóor arrière dañoo dóor marche arrière ba ci mur ba sës taxaw di appaat di xëxët ñu leen pare nañ bu ñu leen heure boo leen paree pour ñu àndoon ñu ngi terrain bi taxaw leen xaar ñëpp daal di génn commencé naan waaw booy bee fi ne dañ ko nangul li ko yàlla may nangam sangam booy bi ànd ak modeste ànd ak am leen jiite leen lépp man maa ngi seen ginnaaw rek loolu doxal man dinaa d'accord jiite leen Sonko mérite la am buñ ko trahiré buñ ko ban njëg lañu am mérite la am ci kanamu ñëpp saa yar na leen na leen leen bàyyi ay détails yu ñu dugal ay xoolal Barth bu ñëw bu dem is the same thing bu ñëw bu dem Idrissa Seck parce que waa ji ay jikkoom moo tax yàlla teg ko fi mu ko teg bi muy indi ay jikkoom àndul ak Bart ñëw àndul ak Khalifa ñëw ay jikkoom la indi leen man jikko yii laa am politique yii laa koy defee indi leen seen xaalis ñu bokk liggéey réew mi nangam sangam nangam sangam ñun ñëpp ñu gëm kooku ñoom Bart ak ñëpp ñu ci Bart lan moo tax ñun ñëpp ñu naw ko parce que Bart dafa nangul Sonko li mu doon Khalifa ñëw ñu nangul naa ko li mu doon waaye ji la nangul ñi nga doon bu ñu xëyee xëy ñoom dañu bëgg a waxtaan président loolu njortal njortal bu rafet toog tegale say tànk di xaar ñun loolu loolu kese lañu war a tegale suñu tànk toog di xaar ñii ndax xam na ni ku ci def erreur bu ndaw ci Ousmane Sonko askan bi xam ne yow li nga nekkoon ak yëpp da nga koy da nga ko wor yow you pray already I didn't pray but I'm gonna pray for him anyway so gars yi sénégalais yeewu nañ bu yàgg léegi Sonko ñu war yëpp yéena leen pourquoi kon nekk fi di di di di di bëgg di indi ay problème ay boucan kenn waa ji waa ji ndaanaan la waa ji ndaanaan la ko waa ji du koy du koo xamante ni nii dañoo war a ànd moom ba pare di ko jiital di ko jiitu ba pare di nekk dem di ko tëb ci oh non lañ ci ginnaawam daal rek ba wax. <laughs> ay ay waxam moom maa sant grand ah, ay waxam saa yi ay waxam na leen na leen ànd ak discipline man bëgguma bëgguma man. ok. Euh, Yeah, if you can leave this voice because I'm, I'm trying to go to more to pay. Can you send your a Zen or something? Good. I'm gonna text. I'm, I'm, gonna, I'm gonna text him later on. Yeah. Don't please don't forget. No, I'm gonna do it later. Yeah. Sama guy, nanen gorgorlu go to quoi. Ñu ñu bañ a gaaw excité wu ci ay ay détails te boo xoolee la plupart ay faux compte dañ ciy dugg waa après pëtaxlu ci xam nga pour jaxase affaire bi ñu ni waaw opposition ba tas na xam nga boo xoolee am nañ seen intérêt dèjà gis nga seen média li ñu bëgg commencé dugg opposition fi mu toll nii ko daanaka tas na yëfi seytaan rek mooy neex yëfi seytaan dong la ñu bëgg a def jaxase ñu pourquoi ñu bëgg ñu daan ñu bàyyi ñu def loolu bu ñu bàyyi ñu def loolu parce que gën na leen loolu nan gën a diñ loolu waaye nan ko ne nekk suñu lu ñu war a nekk nekk ci projet waa ji taxaw ci ay waawam ay déetam ñu bàyyi ñu wan leen ni ñun tey lañ gën a taxaw tey lañ gën a dëgër tey lañ gën a pare dem kon ne ci wax ñu ni waxal ñoom moom xam naa ne ku dem élection ba natt sa bopp ba pare soo fa jógee di nga xam yow kan wala danga mooy l'essentiel ñun moo xam nañ bu nattee suñu bopp moom ci kàttanu ak mbaaxam leer na leen Sénégal moom Sonko bu nattaatee boobu ci élection présidentielle xam ngeen li yàlla def mais ñeneen ñoo war natt seen bopp mooy Karim mooy Khalifa mosuñu bokk nañ natt seen bopp dañ xam lan la ñuy posé ku nekk pose sa bopp

<coughs> di leen santaat bu baax ah di leen nekkoon ci live waaw yàlla na yàlla taxaw sàmm ñu may ñu ndam waaw incha allah lu ñu a am yàlla nañ am yàlla lu ñu a am ci islam waaye bu ñuy dee yàlla ci islam waaye bu dekki yàlla nañ ci islam yàlla na yàlla aaral waa ji ko taxawu ko yàlla dimbali ñu fi zaahiran wa baatinan ba dara du ko képp ko am pexe boo xam pexe war na intérieur extérieur ci biir ci biti yàlla mi ko wattu woon bu heure mën na ko continuer di ko wattu ba keneen ko am beneen programme sa programme boobu daan du yàlla mën na ko wattu yàlla na ko yàlla wattu yàlla aar ko yàlla sàmm ñu ñëpp bañ fekkee projet bi lépp te mu doon Sénégal nekk njëriñ Afrique nekk njëriñam moom gën ci moom addunaam ak alaaxiraam yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def aywa sama gars yi def amaat